nomme madame Ning Mame Seynabou responsable femme derrière le président Abdou Aujourd'hui, le, samedi 17 juin 2017, on se réunit ici à Diamagen pour commémorer notre conférence qui est euh, notre première édition, la conférence des femmes. À cette occasion, nous remercions d'abord M. Siredia, le coordinateur départemental qui est venu montrer son attachement à l'endroit du président Abdoumbaou. Nous remercions aussi M. Abdoulaye Fall, directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse. Nous remercions aussi M. Lamine Aïcha qui est responsable derrière le président Macky Sall. Nous remercions Mme Mambaye Gueye, responsable APR à Djamagen. Nous remercions Mme Ndei, Ndei responsable APR à Balabé. Nous remercions aussi M. le ministre Ali qui a envoyé une forte délégation nous vous remercions, Monsieur le ministre. Nous remercions aussi Monsieur Mamadou Ning, directeur de ITECOM. On vous remercie. Nous remercions aussi tous les membres de Benno Bokuyakar. Nous remercions aussi les chefs religieux de Djamagan et de toute la région de Thiès, principalement Oustas Alun Diaw et Elage Tassir Abraham Gay. On est très content de votre venue. À cet effet, nous remercions le président Abdoumou, par ma voix. Et pour revenir un peu, pour notre conférence, aujourd'hui, les femmes derrière le président Abdoumou qui sont engagées derrière lui depuis des années, à l'accompagner, à le soutenir dans la joie, dans la distraction et dans la rigueur. Des femmes, des femmes qui sont des dames de fer à Djamogun et dans toute la région de Thiès. On a organisé cette première audition pour soutenir le président Abdoumbaou et montrer au président Macky Sall qu'il y a des femmes qui sont à Thiès, principalement à Djamagan, qui sont derrière le président Abdoumbaou pour le soutenir pour sa réélection. Le thème de Dokondo a été mis en exergue par toutes les femmes pour montrer que de Dokondo est primordial. Avant d'aller ailleurs, il faut d'abord voir les Dokondo, comme on le dit. Parce que même Dieu a dit que les deux condos sont primordiales. Avant de voir sa famille, c'est les deux condos que tu vois en première. C'est pourquoi, avec l'accord de la présidente Nungan et derrière toutes les femmes, on a choisi ce thème. Les leaders qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, on leur dit d'aller inscrire. Parce que tout ce qui nous importe, c'est la victoire du 30 juillet 2017 du président Macky Sall et pour sa réélection en 2019. Donc, je vous dis, chers camarades, chères sœurs, chers frères, il faut aller vous inscrire parce que seul le travail paye et seule l'union fait la force. Et on a besoin de cette union pour qu'on puisse gagner à Thiès. Monsieur Idrissa Seck, à Thiès, c'est notre souhait, nous les femmes APR, derrière le président Abdoumbaou et derrière le président Macky Sall. La nomination de Pape Siredia, directeur général de poste, a été une fierté pour nous d'abord. D'abord une fierté pour notre leader. Parce que notre leader, le président Abdoumou, est un homme souple et qui respecte tout le monde et qui aime tous les hommes d'APR et des femmes. Donc, Monsieur Siredia, nous sommes derrière vous, nous les femmes d'Abdoumou, nous sommes derrière vous, euh, nous prenons notre main et nous les mettons dans les mains de votre femme ensemble pour la victoire. Mangi ngi Mam Mame Seynabou madame Ningue. Mangi Nek responsable femme après euh, derrière Abdou Mangi maa tamit responsable communication du président Abdou et de toutes les femmes. weesoo loolu ñun les femmes ñi Sante sant bu baax euh, ci wax ji ñi ngi def suñu kaddu am ci ndigalu Anta Nungaan Diop moom mi nga xamante la présidente ak derrière toutes les femmes qui sont avec nous. conférence bi tay ni ñu ko la machallah sante yalla première édition montrer que le président Abdou Mbow amna Amnaï ay jambar amna ay Aliou Diatta Amnaï ay Boubou ñoo ngi nii ay jambar ñu depuis des années depuis 2007. Ils se sont engagés derrière le président Abdou avec loyauté avec ferveur et avec rigueur. donc li moom motax tay nous ñu organiser wane suñu ñun les femmes de suñu au niveau des femmes de Benno Bokk yakar xamal nit ñi ne leen ñun li moy suñu doole andando ak Abdou Mbow mu ñu gagné le soir du 30 juillet 2017 pour donner une majorité confortable au président Macky Sall à l'Assemblée nationale. lolu loolu question réponse bu may neex lay doon ndax le ndax monsieur le directeur général de la poste monsieur Siredia, que je salue monsieur Siredia, Dia suñu euh, euh, frère Abdou. nekk xaritu Abdou nekk jàmbaaru Abdou ñoom ñaar di ay lépp di ay doomu ndey tey jii defal nañu forte délégation ñëwal ñu ñëpp xam nañ ni Siré Dia tàmmul di déplacé wu di ñëw ci ay événement waaye tey xamal nañu ni bés bi daf ñoo ñor te président Abdou Mbow day kenn ci moom donc mom wane na ni tay mi ngi taxaw ànd ak Abdou mbaw ngir gagner bir Thiès ndax dañu bëgg battre le président Idrissa Seck bir Thiès xamal nañu ko Thiès ñoko mom. ndax il est temps ñu nangu Thiès xamal nañ ay doomu Thiès ni ngi fi ñu engagé yu melni président Abdou mbaw li moo ñu tax ñun les femmes de du président Abdou mbaw ñu remercions aussi sans terminant le président Abdou mbaw nit ku ñu jappalé président ya ñu jappalé ya ñu dimbali ba pare tey dafa def lu reuy jël biir Makka jox ko kan ben jambar ben gaynde ku ànd ak depuis 2007 fidèle ci mom muy kan Maguette Kobar nit ku bax deug ersan mhm. tey jii waaye juróom làqu démb président ya bax nga jël billet bi ne kenn du ko tiré président jël na billet bi jox ko Maguette Kobar ñepp content ci donc ñun c'est une fierté mhm. bien sûr tout le monde est content waaw tay tay ñu ngi ni taxaw ndax doo lay ndox mm. parce que lii bu amee ginnaaw yàlla nañ koy sante Antoine Ngaan mi taxaw mu nekk suñu mag jàppale Abdou Mbow xool lu ko Abdou Mbow jox day jël ci poosam di jàppale Abdou mbaw rek te yàlla tax te fasu naaru góor loo ko bañ bañ bañ nangu ko dafa mën a daw tey ku ñëw fii tey gis tey lii tey nga xam ne waa jàmm gën tey taxaw nañu jàppale Abdou mbaw jàppale Abdou mbaw mooy jàppale suñu bopp jàppale Abdou Mbow mooy jàppale sa gox te ñun ci loolu la ñuy dox ñuy ñaan ci yàlla bu ñu ci élection yi fii premier centre bi na ko Abdou Mbow gagné gagné école jàmm gën ñu xam ne Abdou Mbow kat doo doomu kees la te ku wàllu yaa nag dafa fekk sa dëkk tëggul kon yow Anta Ndoungane ñu ngi lay jox kàddu yow mi nga xam ne yow yaa ñu jiite yaay suñu mag te yaa jiitu faxastaloo kenn ñu ngi lay jox kàddu Anta Ndoungane. ngi leen di nuyu yéen ci seen tur ak seen sant di gërëm ñëpp di rafetlu seen teewaay fii ci conférence bi di wax ne ñun jigéen Abdou Mbow ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi sant ñëpp lii ñuy def defuñu ko lenn lu ànd rek booloo doon benn di jàppale suñu càmmiñ honorable député Abdou Mbow muy suñu rak du suñu xarit ku ñu mën a jàppale ku mën a sonn ci ñun Abdou ak ñun ci paasu màkk yi Abdou ak ñun ci ku feebar mu faj la Abdou ak ñun ku am problème mu taxaw ku am ngénte mu ñëw ku am dëj mu soutenir la kon ñun mënuñoo def lu dul taxaw ci ginnaawam jàppale ko woo suñuy nit woo suñuy xarit woo suñuy rak woo suñuy am di jàmm ñëpp taxaw takku jàppale ab du mbaw jëmale ko kanam di sant ñëpp gërëm ñëpp. ñu ngi sant ñëpp di sant mbooloo mi di sant dëkkandoo yi di sant ñëpp ñu ni wuyusi si rek ndax nag woote ñu wuy si la rek dafa neex loolu kenn amul fayam ñi ngi sant nag ab Abdou Mbow yàlla na ko suñu borom fayal. ci barke yonantu bu tedd bi ndax abdu lu taxaw mu taxaw ji abdoo nga ca biyee màkka ya abdoo nga ca dëj ya abdoo nga ca ngénte ya abdoo nga ca nit feebar mu faj la nit am jàqare mu dimbale la te yàlla tax yal na ko suñu borom jàppale ci barke yonantu bu tedd bi ñi ngi ñaan àddina bee kees ak ñëpp nanu jàppale abdu mbaw te yàlla tax ci barke yonant bi léegi bi may taxaw rek la ko nday mbaw wax magam nee na ma santal ma abdu foo loo wax rek maa sant santal ma abdu ay bokk ma ko jëkk a sant ndax nee bu nit baaxee laaj ko mbokk ya nday mbaw nee na nañ sant Abdou bu baax nañ ko sant bu baax yal na ko yàlla may gudd fan jigéen ñii ko jàppale yal na leen yàlla may gudd fan ndax nag jàppale wu ñu Abdou ay bokki Abdou la ñu jàppale ndax lu ci law rek dina leen teq yal na leen yàlla may gudd fan ñu ngi sant Anta Nungaan bu baax di sant nag Binta Fall ak ñoom rakki yéen ñëpp ak ñoom uh, Aïda Sall ñoom ñëpp bàyyiwuñ leen yéen ñëpp jàpp ngeen ci ba mu baax yal na leen suñu borom taxaw ci barke Seydina Mohamed. maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant. di kontaan nag di kontaan bu baax a baax a baax di sant yàlla bu baax a baax man maay présidente organisation bi di ajaratu Binta Fall Abdou Mbaw sama càmmiñ yóbbu ma Màkka defal ma ay taranga bon nag organisation bi ma ànd ko ak sama staff bi bi ba lépp normal maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñii mënuma leen a fay ndax man rek mënumaa dem yéen a ma jàppale ci organisation gan loolu bi mu wéyee nag ñu jël suñu ngërëm lépp te ko si loxo Anta Ndougane suñu présidente parce que moom moo jiitu ñu topp si si ginnaawam ba lu ñu def dañuy jël nuyoo bi ak ngërëm lépp teg ko si loxo Anta mu jàllaleel ñu ko joxal ñu ko Abdou Mbaw ñuy gërëm waa jàmm gën gépp nag ndax fépp fuñ maaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu euh, ci seen tour ak ci seen sant di remercier bépp personne bi fi ñëw parce que ñëw nañu waaw salaamaaleykum mbokk yi man la Tëngu Gueye dëkk Thiès Ouest euh, di euh, la vice-présidente des femmes de Abdou Mbaw di remercier bépp mbooloo bi fi nekk ci seen tour ak ci seen sant parce que ñëw nañu massivement jàppale ñu ci suñu conférence bi di leen remercier remercier bo xamantani amna commencement mais amul fin ñu ñaan euh, koor gi Yalla ba mu nekk suñu mujjantalu koor Yalla may ñu gudd fan gu ànd ak jaamu Yalla. kontaan nañu vraiment di remercier femmes Abdou Mbaw yi parce que sont braves euh, mobiliser nañu. dugg nañ ci kër yi woo nañu nit ñi ñu ngi ñëw nañu massivement di remercier aussi waa jàmm gën amuñu seen fay bàyyi nañu bépp liggéey buñ doon liggéey ñëw wuy suñu ci suñu bés bii te nit amul lu dul bésam kon sant nañ leen di leen gët donc di wax ne dinañ ñëwaat jël sant ñu ñëw ñu war a jël jox leen way yi neex na trop ñi ngi sant suñu mbokk yi nga xam ne ñoo fi jóge sant Moustapha Baye mais dañu wax conférence lañu wax suñu dégloo yi nga xam ne ñooñu fi tax a ñëw ba pare ñu jóg nag jublu li tax ñu jël kàddu dinañ jëlaat kàddu comme ni ma ko waxee sant suñu gan yi fi ñëw gërëm leen jigéen ñi dinañ ko def mais ñu nit dinañ ko def seen mais li tax ñu jël kàddu dañu bëgg a libérer suñu xarit suñu directeur général bi di Siré Dia parce que am ay yeneen yu mu war a te liñ naan tàgge boo gis am na jàppal jiw tey jii suñu fi ñu jëm ngeen jéggal ma nag conférence dañu waaye nag

xat la ñoo koy defandoo ensemble ku gis Siré taaxi kaw gis Abdou Mbow Ersan jàpp leen ne ñoo bokk lu ñuy def parce que benn liste ci la ñu nekk ñun ñaar. ci la ñu nekk ñeneen ñëpp ñoo bokk li ñuy def ci liggéeyal président Macky Sall mu ñëw ma ne ko nga ñëw au moins nit ñi gis la ngeen xam ne moom it mi ngi liggéey liggéey bu am solo ci président fii ci dëkk bi président tànn ko def ko tête de liste fii ci élection législative yi donc toogaayam bi jaratul may wax ne ñoo ànd di def li ñuy def ndax ñi nga xam ne mosuñu ko gis sax dégg nañ lu baax li nga xam ne mu ngi koy def ci Thiès. ak liggéey bu am solo bi muy defal président donc monsieur le directeur général euh, say dëkkandoo ngoog say mbokk ngoog say ñi nga xam ne lépp loo nekk ñu nekk ci ñi ngi noot pour que vraiment ngeen xam ne daal euh, suñu nit la suñu xarit la te ku ñu jàppale aussi waaw jox ñu cër tamit moo tax mu ñëw fii donc dinañ revenir après ci si ñoom Babacar ak ñeneen ak ñeneen mais dañu doon wax rek pour libérer ko su bëggee jël kàddu aussi ñu jox ko kàddu avant mu sànni ci avant moom muy yeweeku comme ça ñu jox Oustaz Diaw suñu paree nag Cheikh yaa ngi jóg toogal bu ñu bu ñu paree su ma paree ci kàddu bi Oustaz jaw mooy jël après Cheikh nag mën ngaa jël ci intercalé avant Idrissa di jël nga mën a waxtaan mais bu ma paree moom Oustaz jaw mooy jël wax su Oustaz jaw paree mën ngaa jël nga waxtaan parce que waxtaan baax na aussi parce que roof yàqul jën donc su paree ñu jox alaaji Idrissa mu waxtaan ñi nga xam ne ñoo nekk ci rox bi ñoom duudu ñoom it def seen mbir donc ñi ngi jox euh, euh, Siré mu waxtaan jarul introduction cher dégg nga donc ñu jox Siré non voilà baax na

mom ñëpp ci adina bi ak Sénégal yëpp gis nañu taxawaayam ak côté du président Macky Sall donc bi ma yëgalee conférence bi ma ne lu ma jàppoon dinaa ko bàyyi ñëw teew au moins nit ñi gis ñu ensemble ñu xam ni diggante bi lu rafet rek moo ci nekk et on travaille ensemble en direction de législative di ñaan suñu borom ci kàttanam mu may ñu ndam au soir du 30 juillet donc di profiter occasion bi di ndokkeel jigéen ñi di leen féliciter parce que seen initiative bi parce que mënoon nañu organiser leneen mais conférence lañu organiser dajale nit ñi pour ñu wax leen li leen yobbu ci sen borom delloo nit ñi sen diine xamal leen sen diine donc ma ngi lén di féliciter di lén remercier di remercier assistance bi fi tok yépp di nuyu Babacar Fall di nuyu Idrissa Gaye sama xarit di nuyu Oustaz Diaw di nuyu suñu pape pape Alaaji Malick Mbaw di nuyu mbooloo mi yëpp ku lim da ngay jum nuyu naa ñëpp waaw ci xol bu sedd vraiment di leen gërëm di leen sant ne boo gisee bëriwuma li may génn ci mbooloo mais abdu mbaw moo ma ko jaral moo tax ma génn ñëw toog jërëjëf merci. jërëjëf voilà donc dañuy jox euh, Oustaz jaw ma gunge directe bu ko kenn gunge nag ñeneen ñi nga xam ne war nañ koo gunge après mën nañ maa xaar jarul ngeen koy gunge Cheikh bàyyi leen ma gunge ko mu dem ñu jox Oustaz Diaw. mu waxtaan suñu paree na ngeen léegi ñu jox oustaz. jàkkaarloo yëpp ñuy ay nitu diine muy ay gor yoo xam ne dañuy séqante di waxante am na loo xam ne suñ demee ba bésab tey bii ñu woote am na lu tax ñu woote sama kàddu nag. du ci gudd ndax li ko waral mooy mooy xaaji Idrissa Gay mii toog bu dee qaala laahu qaala rasul rek doy na ci tayit nit du wedd boppam man ak moom ñoo bokkoon benn daara bu ñuy jànge al kon ñoom su ñëwee fekk si ma ci gox bi man dama koy dalal. waak tey dem na fukki billet ak juróom benn 16 ca nag ren bokkugu ci toni ciment yi nga wodd ci jàkka yi ak jàkka yi nga xam ni ñoom nga waxtaan ak président ñu war koo defaraat fii ci Thiès dinaa ko lim léegi juróom la président déranger na budget bi war naa dugg te lépp yow la boole koog nag nekk ci kanamam di ko wax lépp loo xam ni yoon wu rafet la wu koy jëme kanam abdu nit ku baax nga wax ko lu baax ci jaamu yàlla la bokk. li may faral di wax ni Thiès yàlla dogal na ñépp a bokk koo bokkalul ci deret ngeen bokk ca xaqiiqa مدول وقتي والو دكنو يونتي بي دافا واخ ابا ذر اذا طبخت مرقة فاكسر ماءها صوتو غتي بامو نيور تمنو تيبل سي دكنو نغا يوكو نيهخني نخ بولين خيت بي خيني te tibbaloo leen ci ba yowmal do doo dugg que déggal waaw léegi nag dëkkandoo bi nga bokkal deret ngeen bokk benn kër kenn ku ne ber sa njël nga togg ba mu baax te sa doomu baay ba reerul yow nga réalité tibaloko tan julit ليس المؤمن الذي يشبع وجاره يونتي من هنا كوني نجلد كا اوا غير مسؤول كارانتي ميزون تي دوات كارانتي ميزون غوش maison ci gannaaw yonent bi nee na am ku reerul te dimbaloo ko mu reer bu yowmal xiyaamee balaa ngay dugg àjjana justifié ko mbokk jullit mbokk jullit yi euh, nañu dellu si waat benn waay dafa dëkk ak benn dëkkandoo dëkkandoo bi lakkal ko di ko teg fitna rek waa ji xëy dem ci yenent bi ni ko man diwa ngi may bëgg a rey yenent bi ni ko muñal mu delluwaat këram waa ji du ko bëgg rey waa ji delluwaat ci yonent bi ni ko diwa ngi may bëgg a rey mayuma fu ma amee jàmm Omar ibnul Xataab yeewu génn këram ñu daje ci mbedd mi Omar xool ko ba seppali ko waaye nuyuwu ko Babacar xool ko waaye nuyuwu ko ñuy ñaadam ñaadam jëm kër yonent bi ba ñu demee ba yëg Babacar toog Omar toog ku ne sëkk Babacar ni yonent bi laajal ma Omar lu ma ko def Babacar Babacar ni Omar seetal ma seetal ma laaj yonent ni ko laajal ma Omar jërëjëf Mbacke mu ne ko nuyu dama bëgg nga wax ma lan عمر بن الخطاب نيون انتبي بالله جسنا بابك وهي بابك جسنا لاجكو لوتخ نيوما لاجكو لوتخ نيوما موني دن يونتبي ني بابك وخال ولا ما وخلا دي جامك نخ ديغنتيم ak kër gi digganteem ak njaboot gi te ma fekke ko kon su agsee balaa ñuy ñaan di yëkkati jotaay bi ñu jox ka kàddu mu nuyu mbooloo mi ndax 14 lañu waroon a tëj ndax président am na yeneen lu koy xaar man mii am na conférence ba may xaar dama ni leen woon fu jote heures jotee balaa 30 dinaa fa agsi waaye lii moo soob yàlla di seedeel waa jàmm gën di waa jàmm gën di seedeel it waa Thiès waaye du ko seedeel Sénégal du ko seedeel àdduna bi ndax lii soo waxee ñëpp jot ci mooy président Abdou Mbaye mën a teral mag nga ku mën a teral boroom xam-xam nga fa ma terale foofu teral jafe ca sama premier at xaw ma ma màkka ma fekk la sama kanam màkka ba suur naan ba mànd nga jox ma riyaal deux mille waaye teraanga du nëpp su ko defee mbooloo mi asalaamaaleykum wax ju gàtt la démb lañ ma indil kart bi ma xool ko ma gis kart bi am melokaan wu particulière bu doy waar mu mel nii conférence bu rax ci conférence yi la déedéet jërëjëf moom moomu indil carte bi Adja mu mel ni conférence bu rax ci conférence yi déedéet nijaay Fall li tànt bi rëy rëy yëpp yaa fi sama ndey yaa ngi ci man di gay mu mel ni dafa rax ci biir conférence yi ci weeru koor gi alors que parti la ci conférence yi conférence politique warona a beau bari lol ngir ñaari mbir nit ñi xam lan moy politique ba paré nit ñi xam ni alcorane politique la. Hmm? alcorane lépp des propositions d'actes ay actes à poser. la yàlla proposé ci alxuraan yëpp. yëpp màggal yonent bi yëpp ci yàlla yëpp yëpp سبحانك اللهم وتحية فيها سلام فيها سلام فيها سلام فيها سلام فيها سلام فيها سلام فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين جامو سنغال